monsieur le ministre ngi lay félicité parce que acte bi nga njëkk a posé mooy bi nga ñëwee ci secteur agriculture bi da nga dajale ñëpp ñi nga xam ne ñoom la concerné muy les opérateurs semenciers ak ñi nga xam ne ñoom seen domaine boobu seen domaine la nga toog waxtaan ak ñoom def état des lieux xool mbir mi lan laa fi fekk lan laa ci mën a joyanti ak lan laa mën a def mbir mi ba mbir mi jëm kanam kon boobu loolu soo ko defee ñun ñu xam ci secteur bi lu bari dañ la ci félicité di la encouragé par rapport démarche bi nga def noonu loolu moo tax ba léegi dégg goo ci coow ci secteur boobu secteur bëri coow la mais bi nga ñëwee ak dialogue bi nga andi fas yéene waxtaan ak ñëpp loolu moo tax tey jii euh, ba léegi dégguñ ci coow te yaakaar naa ne yàlla buñ ci dégg coow parce que secteur la boo xam ne ñëpp am nañ ci yaakaar beneen bi mooy Euh, mise en place yi mooy notification yi ñëpp xam nañu mise en place yi au niveau des commissions teel naa dem mais nag bu ko bàyyee noonu parce que am na ñoo xam ne ni bëgg naa nga jël sa tànk yow sa yow ak sa équipe ngeen wàcc ci terrain bi dem parce que am na ñoo xam ne ci seko yi dañuy ñëw andi ay semence benn exemple ñëw woon la ko mais boo boo nee ginnaaw ñu andi beneen beneen beneen jiw boo xam ne nekkul bi ñu doon présenté wala bi ñuy joxe baykat yi kon boobu bëgg naa nu mu gën a gaawee Euh, say collaborateur ngeen wër commission yi xool li fa nekk ak gerte yi xam ne opérateurs yi moom la ñuy présenté parce que nag ñëw rek présenté ñu loo xam ni euh, gënul loolu yaakaar naa ne du gën kon boog loolu yaakaar naa ne bëgg naa ci yu kii beneen bi mooy ñëpp xam nañ ne daaw dafa jafe woon daaw ndox mi bari na am na gox yoo xam nii nawet bi am na lu mu fa yàq kon boog nawet bi yàq na fa lu bari ba seen récolte yi ñu war a am amuñ ko kon boog gëm naa ne cent milliards yi président wax ne da koy andi ñoo ngi ko tudd mais dama bëgg ñu décaissé ko parce que il est temps yaakaar naa ne su ci yàlla àndee léegi léegi nu mu gën a gaawee gëm nañu feeg un mois taw war na mën a tàmbali am na zone yoo xam ne taw bi war na fa tàmbali. kon boog buñ ko annoncé le président de la République muy mesure boo xam ne ñëpp a koy rafetlu na gaaw ñu génnee ko parce que baykat dañ koo soxla nit ñi dañ koo soxla kon boog loolu maa ngi interpellé état maa ngi interpellé ñëpp niñ ko waxee na gaaw génn parce que suñ mbokk yi dañ koo soxla nu mu gën a gaawee. beneen bi mooy euh, ñëpp gis nañ ne ni mel mooy université Cheikh Anta Diop tàkk na ay wayu ak i bandi ñoo ko taal ñoo xaman ni amuñu benn kàdd bu ñu war a wax président mag Sall moom la yàlla jiital ki ngeen tudd noonu yoon moo dal ci loxo ci kawam mais gëm naa ne yéen ñooñu wutal ay tool yu yaatu mooy ñii sama mbokk waa Pastef yi ñoom ñëpp la ñuy yóbbu foofu ñuy bay force parce que am na ñoo xam ne dañoo toog yoon te yoon danañ leen jël atte ni mu leen ni mu atte seen kilifa teg leen ay daan bu aajoo ñu jël ay surga dem ci àll bi ñu bay parce que loolu lañ mérito mérito wuñ dugg ci biir askan wi parce que muy bandi muy taalkat muy raykat kooku amul benn place ci biir cette société kon boog tool yi na yaatu parce que ñii ñu bëri ca tool yi lañu jëm waaw bu buñ leen attee ba pare dana leen teg lu daan yu métti parce que ñoo ko mérito ñoo def lu tax ñu def leen ñu teg leen kon boog tool na yaatu nga wut jiwu bu baax pour sama mbokk Pastef yi nga xam ne ay wuyu lañ ñooy taal ñooy yàq buñ ci àggee ñu jox leen dem bay beneen mooy suñ kilifa diine yi ñëpp xam nañ ne ku mel ne sëñ Cheikh Saliou ku mel ne sëñ Mountakha Bachir ay hectares la ñuy bay yu bare bare bare je suis témoin buñ paree seen mbay dañuy dañuy yabal murid ñu dem seen tool yi di ko dindi di ko kii kon boog suñ kilifa diine yooyu bëgg naa ñu jàppal leen par rapport contraire man contrairement ak ñi xam ne tey jii suñ kilifa diine yi lañ yaakaar ñoom ñoo taxaw ñu ne suñ kilifa diine yi muy Touba muy Ndiassane muy feneen di leen traité de délinquant di leen saaga di leen wax lu bon ñëpp xam ne dialogue islamo-chrétien diggante chrétiens yi ak jullit yi ni mu rafetee amul leneen looy wax loolu ngandal bopp di saaga suñ kilifa diine yi. lu ne nga traité leen ko nga wax leen waaye yoon moo mayul fii rayante waaye gëm naa ne barke Serigne Bamba rayante dana am parce que suñ kilifa diine ku leen bàyyiwul ñu jaay la suñu bakkan maa ngi leen sant baax di leen la